ñu voté li tax muy jóg waaw ñoom sax euh, dama yaakaar ni li dugg leen ci ñoom ah parce que 2016 référendum bi Afrique góor jigéen da ngeen wax ci référendum bu ko fàtte. bu ñu poñ yi def yëpp bu ñu ko defee pour ñaari tur yeeg yooyu moo tax mu doon ay fenn kese quoi léegi tamit yaakaar nañu dafa xamuñu àdduna day dox te soo ko xoolee dégg naa ñu naan. ak yele yelleefu doomu aadama yi loi bi bu ñewé da koy faagaagal ci ay anam yu bari mais des fois damay xaw a parce que l'instant bu ñaan suñu député yi amuñu niveau euh, mais da am ñoo xam ne ñàkk xam la won yaakaar naa parce que sëñ Bara Abdou Dolly je crois mom dama il faut ngeen labiré ko dal comme ni sëñ Mountakha doon xam-xam di ci jox yeen sa yi du won dara adduna bi ñu nekk légui boko ko xoolee wàll yi nga xam ne ay askan léegi dafa dayo dayoo bërki Demba Njaay ji armée française bi mu Mali ci opération Barkhane ya ne képp kuy yeewoo ci réew mi muy réew yi nga ñoo Mali robot yi di xool ni ñu mën a fexe ba ak li ñuy wax terrorisme Manam faagaagal boo ay pour alal loi 2007 boko manam, loi bi euh, l'article 671 sac bi sa sac bi nga sa sa caméra ak sa photo quoi manam, valise la rek enveloppe mais li ci déli la yoo xam ni ba léegi man dama préparé na ay proposition de loi yoo xam ni maa ngi ko def depuis septembre saccage des biens publics kooku article 225 la mi ci biir complot mi ngi ci biir am na lu mat ñaar lu mat juróom fukki article yoo xam ni depuis la loi de 1965 2007 2016 yooyu yëpp maanaam mi ngi ci biir leen rek moo ci wàññeeku mooy fi ñuy ni que ci code pénal parce que code de procédure pénale excès ma ci

Mais Boko Haram, c'est comme ça. Hein? Admis, c'est comme ça. Les Tchako, Tchako euh, euh, euh, Boubacar, c'est comme ça. Niger, maintenant, je suis le Parlement panafricain. Là, barki démb laa jóge Algérie centre bi gën a ëpp tu ci wàllu sécurité mais xam nañu wax ci Sénégal dañoom Sénégal mooy seen dernier rempart un yakar pour terrorisme ndax suñu armée professionnalisme car nañu tarixa yi nga xam ne ñoom moom la les madame nek na fo xam ne day aar nit ñi pour xalé yi ñu mën leen gërëmal kon man wajuri la am luma ci wax quoi sen domi yi ngi leen téy muy université muy xalé ak yoy yépp parce que tamit dugg fi bu yag Antoine Diome avait parfaitement raison xamuñu lu muy wax en fait terrorisme déjà li am mars mais bu des gens qui tirent à 200 mètres moi j'ai fait des tirs di daaneel ay canard di làkk yeneen làkk attaque ay gendarmerie parce que ñoom bu leen neexon yoon may na ko Sénégal rek man lolu mais la force de la loi, le commandement légitime, ça c'est le code pénal qui le dit. Al-Qaïda, beaucoup de le dorbal, États-Unis partout qui Mais nous ne pouvons pas parce que ñoom loolu la ñu mais leen naa leen di wax lii yëpp lu ko waral nit koo xam ni moom bukki la xam naa bu mu lay xool ak ni nga civilisé xam naa yaakaar ne yow comme tàppe ci nekk affaire yara ba quoi moo nga xam dañuy photo ak moom naan ko wuy wuy sa sikkim bu rafet beeg yooyu mais man maa la yar yaa ngi gaar ba xam naa la yaa ma dégg mais xam nga kii moom kii moom li mu gën a bon li Serigne Cheikh Al Maktoum di wax rek nee na moom man élève am laa man mm. da nga sol sa sabadoor bu rafet bu bees tax nekk taalibe Cheikh mais na nga jël gilet bu ñuul kukk kuk

mais non non c'est bon c'est bon c'est bon mais de ko je parce de ko Je tamit du je tribunal li ci am xam de Je de Je est ci de Sonko ci je li Je ci Je Pastef dama di des fois ak de ko Je de problème suis mais en tout cas je suis de je li ci am Je je crois que li indi de li man avocat imagine je suis de les vidéos tout ça comme loolu mo indi dëkk bi loolu moko leumbele Sonko mo def fa fam diko neub ma ci crois que naa xëy suba wax naa ko d'ailleurs le garder so suma jele vidéo yëpp genné ko buñu wax na ay bop yu dagga gi démé non mais je crois boba jàmm dina jeex. da nga am firnde yi nga xamné mom la ajitar Sarr ki nga xamné modi moo di njiitalu Pastef moo da nga cee yore firnde. mais rewal da damay joy mais Sonko taxaw na caméra ba ki filmé wu len ma mais et puis. ñoom Sweet Beauté la ñuy wax en fait mais ça le problème mais Sonko lu koy tey nelaw lu ñaan lay de camp bi Victor Hugo ci Abel mais ay guddeem mais duy nelaw actuellement mais li ma ci metti mooy ñu ko gëm ay xale yu ndaw ay mag ay jigéen yu sol yu weex moom mu xam ne xam na avocat yi xam juge yi xam nañu moom mu toog jël dëkk bi di ko lëmbale man c'est ça qui me fait mal

il muy def yii pratiquement ragal rek moo ko waral te li ma ci metti mooy yow nga war a taxaw yow pratiquement ne da nga war a am loo war a incarner Sonko depuis un yi man fenn laa ko xamee moo tax man Adja sar doit quand même on m'a appris sur mon serment pour la présomption d'innocence mais mun naa la waatal avant ma gis les images vidéo xale bi ni mu wax comme le loup et l'agneau hein, le petit chaperon rouge man yooyu laa yi ma doon jàng xale moom laa gis mun naa la waatal ni Adja sar li mu wax genn waa gi sa dafa ko fàtt man soo gisee actuellement soo ko yàgg naa ko sib parce que ay jikkoom man bëgguma koy fenn quoi di tapale mais foofu Adja Sarr non les images vont sortir di ngeen gisal seen bopp je crois qu'il le faudra quand même On moins jàpp mën a am quoi moi je prends de la responsabilité personnelle je l'ai dit au garde tout à l'heure mais bu yëpp génnee bu ñu gis en direct bu ñu wax ne ay montage ak yu demee noonu mais je crois bu boobaa jàmm dina am. jabaram ay doom laa ci doon xool. mais c'est fini. yaa ma gën xam man xaw ma ci kaw lañ jugee man dama jéggi saay rek gis leen ba pare foo tourné Dakar instant ngay gis. mais loolu ëpp na Dakar kaw kanam rek. waaw ah, gis naa seen caméra bi ni mu timmi nii xam naa ne bëri na doole trop ba mënuma xool bu baax damay pis pis di pàcc pàccal nit ñi. waaw Dakar instant maa ngi leen dama leen di suivre si. page seen page YouTube daal. waa Dakar instant moom boo xoolee ñoom seen tour rek. day woné lool ndax chaque instant c'est le bonheur. monsieur le maire lo wax ci Dakar instant. waaw c'est une première mais ni gissé Dakar instant fay prouver ne ko Dakar instant ci kanam la jëm inshallah allah. ñu koy suivre Dakar instant lan leen lay wax na gaay dem abonné leen bëgg ci si actualité ñew leen ci Dakar instant. sa ligue rafet na trop machallah mbacké lo wax ci wa Dakar instant. waaw Dakar instant nag moom ñoom dañoo xew.

boo tëddee. moom lay Instagram. Twitter. Imo. Dakar instant. Dakar instant à tout instant. Madame, nous sommes koy ñu ngi koy astuce. Dakar instant di leen bëggee rek. Instant Dakar. Dakar instant, chaîne d'actualité sénégalaise qui vous donne l'information à tout instant. Abonnez-vous sur YouTube.